الموت على استقامة بالإله وآل عين الشريعة والحقيقة إنه تدل يهدي المريد بخالص الأديان سامي المقام وعمدة العلماء تاج العلماء كما ترى طبراني ومن فضل وارق وطريقه التكتي لم يخشى سالكها من الحيران naññi Maodo Cheikh Cheikh leer maam taas gaa yi dañuy jàngale di jox gaa yi par kaas ñuy kaas naan gaa yi li nga ñuy jox lu matul kaas mënuñoo mànd ci kaas ñu dem seeti maam taas mu jox leen ba ñu màndi nga ne la xoolal Sénégal dugal bundu kër kër kër kër ba xam ne nga gis kenn ku jur doom ju mel ni Serigne Babacar Sy borom bone kaare ba Serigne Fallou Gueye jàpp ma ci jabar ko ba ci la diinaani nee na Seydul Xaaji Maalik moom moo doon nu Cheikhul Tijaani moo doon nu Seydina Muhammad moom moo wuutu yàlla ci gàmm ñi mooy Seydul Xaaji Maalik wala kam uxiisa bi jaahikum min saarixin wala kam wajur bi kam maa kunta maalin afaale ko yéene mu ne wala kam oo koy sax bëri na ko gàggoon gàggantiku bëri na ko réeroon gindiku bëri na ko xamul woon xam ci Basiru Haj Maalik mu ne wala kam oo koy sax bëri na bu ñu xettalee min saala yi nga doon yuuxu di seen fan lay jànge ci Basiru kuy bañ bañ la Maodo bu demee ci biir taal teeleen xool Maodo déglu Maodo jàng waa kër Maodo ñu wax dëgg yàlla li wax ci biir mooy dëgg ci mën ko wax war ko bañ a weddi mooy Seydi Hadji Malick c'est lui qui détient le flambeau de l'excellence mooy Seydi Hadji Malick si bëgg fekk demoo ca di wuti jën doo am jën waaye moo dox gën a tamit géej da ngay toog sa kër tëj sa buntu fay sa làmp moo dox fekk la fa ak xam-xam jox la jënu xam-xam la yabooyu xam-xam jox la coofu xam-xam jox gën a fort ci xam-xam jox la xam-xam yi gën a def xam-xam boobu mooy seen xaaji maaj سيد ci cosaanam. wa faaqa fadlan. waaye bi mu amee maam yu baax am sët yu baax am ndaw yu baax faaqa dafa kawe ñëpp fàq nañ ci gën طاب أفران فضلا جهرة مرحبا جهرة لما يوحنا كان توقتي بأدمي نعم تامو ولا آينا ولا بل بل بل sañse sañse bu rafet di wax Maodo bi muy dund Maodo ba mu faatoo Maodo ñu ko jullee Maodo fan lañ ko suul Maodo fan kañ la faatu Maodo kan la ko jàngal Maodo kan la jàngal Maodo defar jiw moom moo defar jiw arab nee na idaa dalla ankal faa'ilu fa ba'as anil maf'uuli boo demee ba mën a wax di jëf jëf ji xoolal la mu jëf la na dafa ko monsieur El Hadj Malick eh, xool leen Maodo maa ko faal nëbbuwul maa ko faal mi ngi ne daanu boo geesoo gis ko boo génnee dajeeg moom. bal maa ko faal. man faraa baalikum. nee na eh Maodo Seydou Hadj Malick Malick la ma ngay dem mu yóbbu lan mu lu bal bal daalikum. nee na li fi nekk nekk sax moo dab gaa yi raw leen aussi. min baalikum. Eh, yàlla ak Seydou Hadj Malick. Maodo bi. zaari de zaari gis nga coono yu bëri. kamaale bi. waaye Maodo bi mu ñëwagul li xew xew. wari ay wari ay. maa la ko wax. kam mu ñëwagul. waa tubaab bi def chapelle gaa yi nekk seen biir bi def chapelle. Maodo kanamu tubaab bi te tubaab bi mënul ci moom dara. Seydi Haaji Maalik nee na bëri na ku jaamu yàlla topp yàlla bokkale ak yàlla bu doon sunu xaaj maa ngi doog a mën. nee na bëri na kuy war gaamu jaamu yàlla dëddu àdduna ci barki sunu xaaj maa ngi. bëri na ku jàng xam-xam bu wér dëddu àdduna ci barki sunu xaaj maa wa waalidina loolu di nee na tas surtout ku am keneen jëlal ku am leneen jëlal ku dak keneen tëjee man kenn laa doon làmb daj naa ko mooy Maodo keneen laa doon wut daj mooy Maodo benn client laay yab muy Maodo keneen dootul dugg ku am keneen téye mu ne xas naa gàttañu naa anil machaayikh mën naa am sëriñ la ku mu doon mën naa am sëriñ la moo raw mën naa am sëriñ moo mën a jàngale waaye seetul xaaj maa ngi laa ne keneen ku am keneen jëlal moo doon ma doy. ilaa cheikhin murabbin wa waalidina Maodo. ku Maodo lay defal nii. mu rabbil waalidin xam nga mu rabbi al waalidin mën nañoo ñëw xam nga luy say seet ni maa ngi wuti yàlla ci kër sëñ ba ñoom al waalidin waaye góor gi nee na Maodo bopp miim dem nga summa summa laakum summa summa kaahum summa habibullah di tahdairina nee na booy seet ñu doy ñu ma sant doy képp ku baax doy képp ku bëgg naan ci leeru yàlla yi sama tur su ma lay bëgg ëppale turam dina ko ëppale nga naan am la ala el la kaala muy Malick muy Seydou El Hadj Malick si moo ñu la doyoon nañ ko. wal kahful mani'u bil irtiyabi sa loxo yi huwa shay'un nadir ila al jinani sina sabadiya ma sabadiya ma sabadiya wal sabadiya ma sabadiya ma sabadiya وديع بارتياب ومعنى وشيخ الدنيا Krishna. شيء على المقصد

شيخ الهادي مقصدنا بمنها والله ولا مهنا البلا خذ على عادي ونادنا صفاتنا Wow. في زمان زمان أنا زمان قد كفاني سيد بابا الدرسي ما تقوم معي سيد الحاج مالك سي امين امين سيد بابا كر نينا دما لام سما خول رك دا جوتو ñu ko loo def ci sa biir xol ca palaasu xol ba si mu ni bëgg laa fa fekk waa bëgg moomu ku mu duy ba fees si mu ni Seydou El Hadj Malick si وقلبي في العلاقة قد جفاني أنا والله man Serigne Babacar Sy nekkatuma Serigne Babacar Sy waaye damaa seey ci biir Seydi Hadji Malick. xaqan fii ka faani. xaqan faani aji jeex laa fii ka ci sa jëm ji yow baay. fa ashir. na nga tàqale. yaa mu ashir. yow mi nga xamante ne yaay séddale di tàqale na nga féetale booy séddale sama xol di ko dogal noo koy dogal si. an bi baay. man lay ñaan rek booy dagg sama xol dagg ko nànk li nga koy dagg mooy bëgg Seydi Hadji Malick jéem a def nànk ndax may yàgg bànnee إن اخترتم بتأصيل كلامي nee na boo demee ba dagg sama xol rek des ci di ko dagg naa ko ndax dagg ko ci bëgg si lu xaaj daani sëñ Babacar nee na téléphone xewagul waaye ci misaal daa toog a yàgg téléphone am bi sonné moom sëñ Babacar ku lay woo mu ni cofeel fu mu la jëmee mu ni sama baay si loxaay min dawaa'i shawqi daa'i nee na daay aji woote woo na ma man sëñ Babacar si min dawaa'i shawqi ci aji woote di cofeel di fan la la jëmee mu ni sama baay si loxaay sabaani abaa ci bàyyam Seydou Hadj Malick maanaam bëgg gi mu bëgg bàyyam Seydou Hadj Malick moo nekk prison moo nekk kasoom waa sëñ Babacar da ngay wut avocat pour génn mu ne de du ma génn bëgguma appel dama bëgg ñu condamné ma à mort ndax bëgguma génn ci sama bàyyi Seydou Hadj Malick yuhibbu shawqan nee na ki nga xam ne nag mooy as-salim mooy ki nga xam ne jàng koo mat xelam dem ci dee sëñ Babacar nee na boo ma fekkee may xalaat sama baay Seydou Hadji Malick bu ma yedd ndax ku jàng màtt sa xel dem ci dee waaye man li ma màtt moo gën a foor jàng dangaan lan la Seydou Hadji sëñ Babacar si mu ne mooy bëgg Seydou Hadji Malick alatil fadaati yaaraani Babacar ni ak a metti xam nga metti day dem ba yàgg muy neex neex yi dem ba yàgg muy metti sëñ Babacar li doon métti métteetul li doon neex ak nga neex te dootul métti ci Seydou Hadj Malick. fa abshir bëggal. yaa muriidu. yow mi am sens. yàlla link sa xol ak xolu Seydou Hadj Malick wala mu connecté sa ruux ak ruuxu Seydou Hadj Malick fa abshir bëggal kontaan na te xam ne am na li gën ci am-am yi. dinañ di Cheikh ku ne am na sëriñam d'accord waaye yow mi am moo la sant yàlla. muriidu asri min fi zaman. farinul asri c'est l'unique de son temps non non c'est l'unique de tous les temps c'est l'unique éternellement Seydil Hadji Malick l'incomparable Sëñ Babacar mu ni Seydil Hadji Malick mooy ki kenn mënut a tëkkale kenn kon attaaya lëwal la dañ ko xëy tur barab ma ni Maodo bu doon attaaya lëwal la dañ ko xëy tur barab kenn doon xëy waat فينا هناك مشايخ يضلون الى النيران سيد بابكر مني سبب ليس منهم هو الذي يضل الى الجنان هو العلم الفقيه نزيه علم am na sëriñ boo xam ne boo ko toppee da lay naan loo waaye ba pare def la gaañe moom sëñ Babacar mu ne kooku sama baay sama baay sëriñ xaj maa ne boo àndee ak moom da lay teg ci yoonu aljanna fexe ba nga dugg aljanna loolu ci sori. huwa al alam al faqih nasihu ilmin nee na nasihu Xaaji Maalik mooy kenn ki nga xam ne amul kenn ku koy tëkkale waaye nit yow ay mooy bon xam-xam bu sell xalifatu Cheikh Ibrahima fi jot tijee waaye mooy góor gi nga xamante ne moom doonu Cheikh Tidiane doon Rasulilaay mooy Cheikh Xaaji Maalik huwa al-bahru al-xidam mu falaa yudaama si baax na la jox sëñ bi إذا الأمواج فيضت من معاني. ما أكل بين القدر وخلنا mooy laa ilaaha illallaah laa waxoon ne Muhammadu Rasulullaah. ma ne. gàmmu Tiwaawan. Ndakaaru moom imaam yaakaar naa ne Pape Samba leer na ñëpp.